moom diine dafay baat boo xam ni mbooleem yiw yi la làmb day benn baat boo xam ne boo ko waxee mbooleem lu baax dugg na ca biir buñ ne nit ki am na diine loolu doy na aw tagg ndax li muy tekki moom diine mooy benn baat la boo xam ni mboolem yi baax yépp làmbu na leen ca biir dañu daan wax ni amul benn jikko bu tedd wala jenn jëf ju rafet te du sunu boroom ci diine la ko jaarale indil ko nit ñi kon lépp luñ gis muy li luy niru jikko ju rafet ca ña ña amul diine jikko boobu lu ñu sàcce woon ci diine la te waa diine ñoo war a jël jikko jooju jëfandikoo ko bu fekkee xool nañ ko muy jikko bu rafet benn bis benn bis ñu ngi def euh, benn benn waxtaan bu ñu doon def ci monde isla ci wàllu jikko yi soppiku ci monde islamique bépp ma ma di ci nettali ni maa ngi dem benn bis Europe maa ngi dem Espagne euh, yàlla dogal ma dugg ci benn biro di laajte waaye xale bu ma fa fekk nga xam ni xaj na ay atam wërte weesu fukki at ak juróom mbaa foofu lay toll waaye yar ba mu jóg won ma ko nga xam ne dafa bàyyi mboolem la mu doon liggéey jóg ñëw laaj ma ni ma loo bëgg ma wax ko ko mu ànd ak man ba won ma fa ma doon laaj yar boobu daf ma yéem ci ñoom loolu may wax ni dafa mel ni ni ma leen gise ci ab yar danoo jëkkanteeg ñoom diine ji nun di ko jàng ci suñuy làmmiñ ñu jëkkanteeg nun ca jikko ya di ko jëfe te waxuñ ko ci sunu làmmiñ loolu nag jullit yi war nañ ko bàyyi xel bu baax waa jéem a delluwaat ca diine ak jikko yañ ca soxla woon te xam ni bépp jikko bu rafet bu ñu gis ci àdduna bi rek jikko boobu diine moo ko fi indi moo xam nag nitu diine ki yor na ko ñu xam ni eh, nekk na fa mu war a nekk wala keneen ku dul nitu diine yor ko ñu xam ni kon daf ko sàccee ci nitu diine yi te ba nitu diine war dañoo góorgóorlu ba loolee muy jikko yu rafet yi ñu sàcce ci ñoom ñu war ñu jël ko delloosi ko eh, teg ko palaasam Sëriñ Tuubaa man nañu wax ci moom ni jikkoom yépp ramadan la man nañu wax ni bisam bisam yépp weeru koor la bisam yépp man nañu wax sax ni euh, bisam yépp wala guddeem yépp ni dafa mel ni guddi gi gën ci guddi weeru koor te bu weeru koor doone sangub weer yi guddi gën ca tànn ni guddi gi moo ci gën guddi googu kon mooy guddi gi gën ci bépp muy laylatul xadri te yonente bi waxoon ne nañu koy nattale ci fukki fan yi mujj ci weeru koor moom Serigne Touba dem na ba dund ni guddeem yépp laylatul xadr jaa'ilu umri ka layaalil xadri mooy sunu boroom def na sama dund lépp mu mel ni guddi yi laylatul xadar ci barke te xam ngeen ni laylatul xadri sunu borom ni mu ko waxee ci alquran wàcceel ko saaru boppam dafa wax ni genn guddi googu moo gën junni weer yu nit di yendoo woor ni ko fanaane julli kon ku am tawféex yi dajeeg genn guddi googu am ba dundal ko ci ak jaamu yàlla am nga tawféex yi mel ni ku dund juróom-ñett fukki at yu tegal yoo xam ne da ngay yendoo woor bëccëg ya di fanaane julli guddi ya Sëriñ Tuubaa ci may gu ko yàlla defal ak pas-pas bu mu amoon diggante ak boroomam dem na ba sunu boroom defal ko guddeem yépp dundam bépp mu barkee la ni laylatul xadri ci kaw nu mu jàppe woon ak jaamu yàlla def ko mu doon ab dundam def ko mu doon bànneexu bakkanam mu am yëg-yëgu ni nit ki bi ko yàlla di bind daf ko bind ngir mu jaamu ko waaye bind ko ngir muy sàkku àdduna jeexal ci ab dundam sunu boroom leeral ci alxuraan ne wa ma xalaqtul jinna wal insa bu liya'budun wërsëg yi nit ñi xante mu leeral ca ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi risquha te Sëriñ Tuubaa daana ko waxtaane lu bari daana wax ni nit ñi dañoo baax eh, la leen war dem di luññutu ji la war sunu borom ndax li leen war mooy ñu jaamu yàlla sunu borom lam warlu ni warlu na ko warlu na ko boppam mooy wërsëgu doomu aadama bi waaye nit ñi dañoo fekk la leen war muy jaamu yàlla ñu sàggane ko la sunu borom warlu ñu tolo ñu di ci kër kër di ko lu luññutu fu ñu toll moom mu ñëw jàngale ni ni nit war a ànde ak boroomam muy jox léppam yàlla féeteeg moom ba lañ doon bànneex ba ñu doon wuti ci àdduna bànneex boobee lu ko ëpp daf ko mujj fekk ci jaamu yàlla gam daan jaamu ba àgg na ci bisam yépp mel ni bisu ayit ci moom bis yépp ayit la ci moom moo tax mu ni lii laylatul xadri nahaari iidu mu ni samay guddi yëpp yàlla barkeel na ko ba mu doon laylatul xadr waaye sama bëccëg yëpp it feet la makaarimul axlaaq bi sëriñ Tuubaa daan dund te mu bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon ngir mottu li si ko soxna Aïchatu radiyallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama buñ ko masaan wax ni ko nit wax na nangam du woo nit ka mukk naa ko lu tax nga wax nangam buñ ko masaan wax ni ko nit def na nangam du woo nit ka mukk di ko gàcceel naa ko lu tax nga def nangam moom jikkoom yu rafet moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weesu woon na loolu na lool kon dafa jubal nit ñi gindi leen ba ñu teg ci tegu ci yoon wu ñu war a jaar ci kaw jikko yu rafet àgg na ci buñ ko nee nang nit a wax nangam muy la joono du ko woo mukk ni ko lu tax nga wax nangam buñ ko nee nit a jëf nangam te muy lu du ko woo mukk di jàkkaarloog moom naa ko lu tax nga jëf nangam waaye dafay dajale mbooloo mi def benn xutba wax ne ana lu tax am ñuy def nangam ak nangam ak nangam lu tax am ñuy def nangam ak nangam ak nangam loola ka ko def bu amee am xel dana xam ne wax ji moo ko moom bu boobaa dana seet nu muy jëfe bu ëllëgee mbaa nu muy waxee bu ëllëgee loolu yonente bi boroom xam-xam yi dañuy wax ne lépp lu yonente bi wax ci hadis mbaa mu jëf ko ci ay melokaan mbaa nit def ko mu bakkoo ca te loolu la ñuy tuddee sunna loo mu ci doon rek aw dégginam la wum dégg ci alxuraan waaye alxuraan ci la yàlla dajale lépp lu mu bëgg a won nit ñi ci la dajale lépp lu mu bëgg a digal nit ñi lépp lu mu bëgg a tere nit ñi it mi ngi ci biir alxuraan jooju ndax bu ñu seetee xissatu xaatib ibnu abi baltaa kenn la ci saxaaba yi e, yonente bi sallallahu alayhi wa dafa waaj ba war a dem makka xaatib ibnu abi baltaa bind bataaxel waa makka ni leen yonente bi mu ngi ñëw bés sàngam ngeen bàyyi ko xel waaye yàlla mi dara umpul yabal jibril mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko ni ko secret bi am na ku ko genne di ko yëgle ji yonente bi yabal ñaari ndaw sayiduna aliyun ak keneen ni leen dem leen ba barab sàngam ngeen taxaw fa jigéen ju leen fa fekk mbaa ngeen fekk ko fa bataaxel ba mu yor na ngeen ko nangoo indil ma ko ba ñu demee ci béréb boobee jigéen ja ba ñu ko fekkee dañu ko wax ne ko andi bataaxel bi nga yor mu ni leen yoruma ab bataaxel ñu ne ko yonente bee ko wax te du fen boo ko génneewul dañu lay futti nangu bataaxel bi bi mu xamee ni këfuñ mu làmb suufu musóor gi musóoroo woon génne ci ab bataaxel jox leen biñ ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ci xaatib ibnu abi baltaha mu ñëw teew bi mu teewee ñu jàng bataaxel bi mu dégg ba jàngee bataaxel mu dégg xaatib mu ni ko ana lu waral loolu mu ni ko xaatib ni ko nañu ma teylu ndax weddiwu ma duma am naa ni ma jàppe woon diine tey laa ko ko gën a jàppe ni ma gëme woon yàlla akub yonenteem tey laa leen ko gën a gëme waaye dadi dama makka dama faa doon ab doxandéem umu fa ay mbokk te sama njaboot nekk fa te nit ñi ma àndal gàddaay ñëw fii ñoom ñëpp dañ faa am ay mbok njaboot ya fa nekk dinañ leen ko aaral ma bëgg loo seral xolu waa Xuraysin ba ñu man maa aaral sama njaboot loolu moo waral ma bind bataaxel bi ngir sarale ko seen xol waaye du ma ab yëf foofu ma ibnu Xataab jóg dafa doonoon ko tàng diine ni yonente bi kii ab naa feq la bàyyil ma rey ko yonente bi ni ko déedéet kii mënatut naa feq ndax ci waa Badar la bokk daal ne ko xanaa xamuloon yàlla yërndu na waa badar ba seen leen ni leen def leen lu leen neex jéggal naa leen ñu xamee ci ni kon ñooña amoon nañ ci ak sell ak i àgguwaay foo xam ni yàlla delli na maa yàlla lu ñu defati ci lu dul noonu it am rëcc lay doon te bu boobaa yàlla dina leen ko jéggal